asalaamaaleykum mbokk internet yu Antv. TV ci bop xibar yi ñu tambalé ko ak déclaration patrimoine bu Idrissa Seck nek njitalu conseil économique social et environnemental Nam Kurelbi bi am amu kilifa yi ci bop rewmi nañu ab valeur 2 millions de dollars muy lu takku ci suñu koppar ak ay terrain ca Thiès lu ci melni kërëm bi quartier Mbour 2 occupé par sa grande sœur ci Toubab Dialaw itam ki di leaderu réew mi amna fa ab résidence ba nga xamni financement campagne second tour bu maître Wade fi ci Dakar itam Idrissa Seck amna kër Point E ak terrain de près de 2 hectares en bord de mer non loin de Mermoz wax lu jëm ci wàllum couvre-feu bi ñeel kàddu yi di docteur Mouhamed Sow di ab pharmacien di ñu wax ni que couvre-feu bi dafa war a tàmbali à partir de 18 heures gannaaw jàngat bi mu def ci wu mbas mi mu ñuy xamal ni naam mesure yu ñu jël baax na waaye rek pour xeex mi mën a jaar yoon faw ñu wàññi temps de contact bi maanaam jaxasoo bi ñuy jaxasoo ngir mën a wàññi taux de saturation bi ci l'hôpital yi loolu yëpp nag mi ngi ko waxee fële ci seen web rajo wax ci génnum àdduna wu kii di avocat à la cour bi di maître Khassimou Touré ginnaaw ab càngoro bi ko tuddal ab diir mu bokk ci lu ñu mën fàttaliku ci ay procès wam génn Khalifa Ababacar Sall ci kaso bi na mu ci taxawee woon ba ci am ñeel di grâce bi ak lépp jàpp leen ni moom nag tey dinañu ko jébbal boromam fële ci diwaan bu tedd ba Touba Mbacké di ko ñaanal suñu borom xaare ko arjana leneen lu tiis muy ab accident bu metti ci boy tollu ci ak ci waan nekk commune bu Mbëlëx département Birkilane accident bi nag benn 4 x bu këpp ginnaaw ba mu doon xëlu chauffeur bi nag ci saa la daal di ñàkk bakkanam keneen ki nekkoon passager ci oto bi ay gaañu gaañu yu metti la am ba ñu mujj ko xawale fële ci l'hôpital bu diwaanu Kaffrine coronavirus ak situation bis bi ci 1457 tests ñu amal 153 cas ñoo ci positif ci test positif yoyu 47 ñoo ci génn comme cas contact ak 106 cas communautaire ñu mën ci japp aussi 3 décès ak 56 ñi amé jangoro bi té nekk ci bu sauvetage voilà mbokk internet yi ñong leen di jaajëfal di leen jox dajé ci benen numéro actu de la journée